defe naa jeexal nañu service yi. Mm-hmm. te euh, li nga xamee ne que moom nañu constaté maanaam engagement yi pratiquement yëpp daal euh, kii nañ ko matal nañ ko euh, muy commune de Touba. Mm-hmm. li nga xamee ne que moom la engagé woon. man mm-hmm. naa wax ne que def na pratiquement yëpp peut-être dina am yeneen ya nga xamee ne que nee nañ moom dina si dolli sax pour mën a gën a matal li nga xamee ne mooy engagement yi. Senelec euh, comme niñ ko fi waxee li nga xamee ne que moom nañu euh, kii woon ñoom ñoo ngi si carrément et lu si bari matal nañ ko peut groupe bi nañuy euh, ñëw rek pour que ñu installé ko gendarmerie def nañ reconnaissance bi def nañ ay demande de renfort donc sécurité bi moom sur ce plan moom defe naa ñoom it jël nañ seeni matuwaay pour que euh, ñu mën a euh, am màggal ba nga xamee dina am pleine sécurité mm. li si demee aussi allègement contrôle yeex yooyu ak la douane ak euh, mm. tamit mm. yooyu ñooñu tamit jël nañ seen matuwaay pour vraiment facilité pèlerins yi ñu ñëw dans les meilleures conditions si li nga xamee ne que moom mooy kii eaux et forêt ñoom aussi seen engagement yëpp def nañ ko ba vraiment macha allah. si euh, mbirum wér-gu-yaram maanaam santé euh, li nga xame ne que moom nañu waxoon ay post avancé ak également renforcement ay médicament ambulance médicalisée et même dolli na si sax dinañ ne euh, ñoom dañuy mën a participer si consultation gratuite bi appuyer dañuy appuyer rek et également dinañ ci ak sami pour que ñoom aussi ñu mën a leen gën a jàppale su nekkee ne soxla nañ ko ak synergie bi nga xamee ne que moom nañu def ak waa sapeur pompier. service d'hygiène moom euh, li nga xamee ne que mooy désinfection ak désinsectisation ñooñu. moom déjà euh, def nañ ko léegi saupoudrage bi moom nañuy def tey. Euh, di tamit dolli ay visite à domicile ya nga xamee nañ ko def pour préparer population yi si utilisation wala sinon ni ñuy traité ndox bi. ak tamit may leen ay yenn produits comme yu mel ni ay aquatabs ak yooyu. waaw euh, dinañ def aussi visite euh, kii waañ yu mag yi pour mën a euh, gindi ñi nga xamee ne que ñoom ñoo fa nekk li nga xamee ne que mooy élevage malheureusement comme ni mu xatee nii abattage chien errant yi duñ ko mën a def mais xam naa ne loolu dañ koy jàpp ba après màggal bi pour mën ko defee mu nekk la nga xamee ne tamit dina dina dina dina permettre aussi plus de sécurisation des des populations Euh, li nga xamee ne que mooy inspection ndawal yi dinañ ko def mooy euh, inspection ante ak post mortem yooyu yëpp tamit dinañ ko dinañ ko def euh, pour li nga xamee ne que moom moo jëm si ndox mi ak OFOR ñoom dinañ jël disposition ah déjà dinañ mettre à disposition ñaari camion et ak le sous-préfet dinañ fa def ay bâche aussi Euh, cinq bâche aussi dinañ ko nañ ko joxe euh, waa kii tamit dinañ appuyer beneen bâche muy six bâche euh, et que même pour camions yi sax ñoom dinañ jéem a xool ndëgam dinañ mën a dolli waaw dinañ jëm def seen këm kaptan daal pour mën a dolli et euh, li nga xamee ne que mooy pour euh, conducteur bi. nga xamee ne que ndox mi dina fa nekk. ñoom dinaal dinañ gisax chef de village bi pour que euh, mu man fa nekk 72 heures. nga xamee ne que du am benn rupture. ci fourniture en defe naa loolu mooy principalement loolu ngay moom nañu soxla et euh, même connexion bi entre euh, ñaari ñaari forage yi euh, ñoom sax dinañ si liggéey pour que vraiment loolu mën a def ba ndox du du manqué ci ci màggal bi waaw defe naa daal de manière générale loolu nañu mën a tënk si kii yi xanaa rek wax na que CSE wax na na que pour arrosage bi ñoom daal dinañ ko ko def waa incha allah te sous-préfet dina suivre loolu ba loolu ñu mën ko mottali Euh, sëriñ bi euh, defe naa daal loolu nañu nañu nañu tënkoon si kii bi di euh, remercier vraiment service yi hmm. si seen taxawaay di ñaan tamit sëriñ bi pour que nga nga ñaanal ñu nga ñaanal service yi hmm. parce que it jullit ay jullit nañ hmm. te jullit moom defe naa léppam ñaan la waaw donc nga ñaanal ñu ñaanal njaboot yi yàlla jàppale ñu si liggéey bi Euh, ba nga xamee ne que lépp la nga xamee ne que mooy soxla euh, ñu mën see taxaw niñ ci mën a yëpp pour que ñu mën a am euh, résultat yi nga xamee ne moom lay xaar jërëjëf sëñ jërëjëf bismillahi rahmaan rahim préfet ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm sous préfet di gërëm chef de service yi fi teew yëpp kenn ku ne gis nañu sa engagement gis nañ sa yéene gis nañ sa pas ci bis bi mel ni mu mel ci baax ak yiwen loolu nag du nu du nu bett ndax ku nekk fi Touba nekk fi ak sëriñ Touba gis yërmande ji mu am ci nit ñi ak bëgg-bëgg bi mu am ci nit ñi boo fi yoree benn service danga nga ca am pas-pas boo xam ne euh, mooy bii ñu am rek kon ñu ngi leen sant bu baax bu ma ko toppoon par service dana dana danaa ko mën a leeral waaye nag damay bañ a fàtte kenn mën na ma tàmbalee ci maire xëy na maire li nga xam ne des na lu mu daa def la loo xam ne yëpp dana ko def xam naa ne incha allahu ndax daana def yooyu ba mu mat mu def itam dimbaleen ci carburant boo xam ne dañ ci yóbbu bagage yi delloowaat ko ci def ci yëpp loolu dana ko def ni mu ko ni mu ko daa defee te te ñi ko fa teewaloon jëloo nañ engagement boobu beneen bi ci des mooy waa Sénélec seen liggéey rafet na ndax ñu ngi ci boobu ba léegi fu manqué woon làmp ñu ngi xool ñu def ko fa ñoo maire ku ko ci def waaye ñu ngi koy def euh, poste bi ñu fi indi rek mooy bi gën a am solo nga xam ne am na capacité boo xam ne mën na yor dëkk bi ci taawu màggal gi waxaale wuñ nag bu màggal gi weesoo kon loolu ñu ngi leen ci gërëm bu baax di leen sant bu baax itam yéen soñ ñu gën a ñu gën ñoo jàppale rek ñeneen ñi ci des mooy santé moom ni ma koy waxee soxna si yàlla dafa dogal muy ko am pas-pas ku bëgg dëkk bi bëgg lu baax ndax post bi bi mu koy inauguré commune lañ commune ñoo ko fi def wax dëgg ñu di leen ci sant bu baax di leen ci gërëm bu baax ndax post la boo xam ne bariwul fu mu am ci yi gën a baax la bokk am na nag feneen ci béréb waaye nag ci gën a baax la bokk Ah, waaye biñ ko ubbee moom dafa am volonté wu daal di fexe ba affecté fi ñi fi war a liggéey ñépp mu am leen dimbale leen ci eh, garab yoo xam ne danañ mën a tàmbalee liggéey eh, gannaaw loolu màggal gi paase woon mu indi woon fi ay garab garab yooyu desoon ma laaj ko moom lu ci xalaatam mu ne ma daal loolu noo ko def baax na bu demee ci dispensaire baax na ma daal di ko indil médecin yi fi nekk ñu ñu yor ko lépp nag mu boole ko nag ak taam waxtu wu ne mu di fi ñëw di xool fu ñu tollu di xool lu ñuy def ñu ngi koy ñu ngi koy remercier bu baax daal di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla bu baax ku am ku am yitte la di santin maire mi nga xam ne moo fi def commune moo fi def dispensaire bi te te mu muy bu baax loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di leen ci gërëm di sant service de seen moom kooku moom euh, Sarr moom dafa yàlla dafa dogal muy njabootu kër gi bi mu ko doonee ba noppi mu am pas-pas pay na ku nekk service régional ñëpp nga nekkal kilifa diine yëpp nga nekkal waaye nag fii laa bokkit du tee nag nga nga jox ko beneen cër loolu mooy li mu ci doxee andi na fi matériel yu bari andi na fi yu bari yu baax ñu ngi koy gërëm ci loolu bu baax di ko sant bu baax a baax ndax way juróom magu taalibe la woon ci kër gi amoon fi taxawaay bu rafet am fi yitte ju rafet kii taawam nekk fa léegi Mahmadan sëñ Mahmadan lañ ko tuddee moom mooy xalifaam moom mii fi nekk kon kooku lu mu def ci lu baax dañ ko ci gën a remercier waaye lu ko lu ko war la fa tabarakallahu maawu rahma ñoom it yàgg nañ ñoo jàppale yàgg nañ ñoo taxaw ci liggéey yu mel nii moom itam ñu ngi sant gouverneur Dieng ci taxawaayam ak yitteem yëpp ñu ngi dafa bari lool tubaarkalla leneen li ci des mooy yeneen seer service yi ci des yëpp itam nag damay bañ di lim di juum waaye lu ci nekk mën naa ñi nga xam ne ñooy ñoo yor uh, uh, CRA moom buñ ko mënul def ci bietam bu weesoo du wees ndax al fii dafa doon foo xam ne xaj yi fi la ñuy gën a bari ndax biir dëkk ba duñ fa mën a nekk lu baax fii nag dañ fi mu nekk ci àll bi bari lool moo tax di di leen fàggu di leen kii baa am na ci solo lool tubaarkalla waa Ofoor itam ndox mi fa tabaarakallaahu ñoom it li ñu ci wax lépp doy na li ci seen wax mën nañ ko mën naa bàyyi xel bu baax a baax ndax boo jëlee ay produits jox ko jigéen doo mën a xam quantité bi mu cay def dosage bi du ko xam te loolu mën nga cee jublu defar mu mujj jur yàq loolu kon du ko mate dañuy xool ba mën ko def foo xam ne bu fa demee dana mën a jariñ ñëpp te lor du ca am loolu ni mu ko waxee noonu noonu rek la deme defe naa loolu mooy li ci ëpp ci liggéey bi euh, ooy fo kii euh, douane ñoom itam li ñu jël mesure dañ ko respecté rek mooy yoon wi jóge Kaffrine jëm si fii yoon wi jóge ndakaar jëm si fii yoon wi jógee Darou Mouhty ñëw fii Touba yooyu yëpp ñu fexe ba yolomal yëf yëpp waxuñu nag ku ci dugal nag leneen waaye nag koo xam dangay ñëw rek indi yoo siyaare ak yoo barkeeloo ak yooyu def ci bis bi kooku moom mën nañ koo toléré ñu def ko baax Euh, su sécurité ñoom itam fa tabarakallahu ñu ñuy wax la li ñu def am na solo lool li ñu wax ne yoon bi jógee Kaffrine presque moom dañ ko enlevé complètement yaa euh, euh, jógee ak daaru mu dëkk yooyu yëpp fu ci ak ak daara dañ ci bàyyi xel bu baax ndax danay bari yu jafe-jafe yu ñuy am yoo xam ne day mi ngi jógee ci loolu ndax li nit ki ñëw dugg ci oto di ñëw mu fees ba nga xam ne ëpp na la mu toll la mu ëpp bu fekkee doonu luy lor warees na ko mën a tollare ba mu accès mu def ko mélange bagage dañ koy faral di wax waaye booy yóbbu dem ci màggal am loo fa war a yóbbu dana am loo yor loolu moom itam bu dee lu yam rek loo xam ne jubluwoo ci dara lu dul euh, def ko ngir bis bi warees na ko mën a tollare kon loolu ñu wax leen ko bu baax ndax danoo gis màggal yi la passé fii ci poste bi rek dem naa fa ñetti yoon ci ci ci ci bisi màggal gi ndax ñu ñu téye ñoo xam ne liñ leen téye boo ko xoolee daanaka du lu ko mate loolu ma defe ne dimbal bu koy def da ngay dimbale nit ki dimbale nag ci wàllu sécurité moo am solo waaye nit ki def it loo xam ne da koy lor kooku moom kenn ñaanu ko bëgg nit ki bu ñu koy ñaan mu mu def loo xam ne tege na ci yoon loolu mooy mooy lañu bëgg yooyu daal mooy doxee ni waaw ise kooku ñoom jàmbaar la ñoom Euh, euh, moom wax dëgg yàlla am nañ taxawaay bu rafet yoo xam ne andi nañ fi matériel bu bari andi nañ fi ay camion andi nañ fi itam euh, ay ay ay bulldozer boo xam ne maasal leen lu béréb yëpp am na ci taxawaay bu rafet rafet ñu ngi leen sant bu baax di sant seen njiit ki xam ne mooy gay te moom it am pas-pas lool fa tabarakallahu bi nekk fii loolu daal defe naa mooy li ñu waroon a wax noo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di ñaan yàlla itam taxawaay bi ñu def euh, ñu ñu gën ko jëmee kanam ndax euh, ab liir buy doog a juddu il faut moom nga di ko sonne di taxaw ci moom di ko di ko xottil mbubb waxtu wu nekk bu demee bay mat nag état na réew yi nag dafa mënoo mënta mat ba complet il faut état day man dara leneen la ca def nit ñi mën ko rek di ko def kooku mooy doxin yi nga xam ne mooy tax li ñuy def lépp mën a sotti birab bi daal am na bëgg nañu mu dem ba àgg ci foo xam ne fii ni dëkkam yi mu yi mu seexandooloon ni ñu mel mu mel noonu loolu lu ñu lu ñu bëgg la lu ñuy dox jëm ca la di ci ñaan jàppale état itam nag président de la république ak gouvernement am ñëpp ñu jàpp ci ba dëkk bi mel na mbara mel volonté bi am na bëgg-bëgg bi am na kenn kuñ fi jox béréb bu nekk yaa ngi am yitte def ko bâtiment ba gën a baax nga xam ne bu melee ni mu war bu noppee dëkk bu gën a rafet lay doon ndax dëkk bu bu fekkee dafa mujj dafay dafa dafay dafay am lu mu jële ci yeneen yi te loolu gis nañ ne mi ngi ci yoonu dëkk bi goudron bi nga xam ne moo fii ñëw it waxoon nañ danañ ko def loolu du du xëy na du du local bi ñoo koy def waaye naa ci boppam waxoon na ne fii moom dana ko dana ko goudronné ah am na ñu ma confirmé woon loolu ne am na financement ba noppi sax danañ ko war a tàmbali ci mois de mars bi wala tuuti ñu dañ ko mën a tàmbali kon kooku moom it ñu ngi ko ci soññi bu baax ndax nun li nga xam ne moonu gënal sax dafa dañoo xam ne xaju fi waaye bu nu amoon yoon boo xam ne dafay jóge ci godoro soxna may jaar biir njaxaay jaar ci penc moomu ñëw ci penc kër sëñ Modou Fataxari ñëw ba dog si godoro bii buñ ko amoon loolu mooy mooy arrangé fii dëgg dëgg dëgg ndax moo bu mënee jàll ba ca ba kii sax mu mën koo def loolu mooy li nga xam ne day ubbiku yëpp loolu moom sunu bëgg-bëgg la te danañ ci continuer di ko sàkku danañ ko waxit njiitu réew mi incha allahu lu mu man mu def ko ci ndax loolu bu amoon rek noonu daanaka duñ amati problème ah, yi yi mu daa wax yëpp nga xam ne dafa aju ci Promoville itam Promoville li ñu war di def yow ñu di ko def wax nañ ko mu jàpp ci moom it def ci lim ci man loolu euh, ba nangu na ko après si kon doon man lu du sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla mu wóor leen ne euh, mu wóor leen ne Seex Masàmba euh, taxawaayam ci sëriñ tuubaa ak taxawaayam ci dëkku tuubaa lii dana ko jëmmal bu baax a baax ndax ndax ndax ndax lim fi am ci suuf su yaatu kenn ëpplewu ko fi boo demee ca forage bi ca corniche ba wër la fa tàmbalee ba agsi bi lépp suuf Seex Masàmba la woon moo ko moom ba daaru këriñ bi ba boode kon cër boobu mu amoon moom ni ko sëriñ Touba defoon moo taxoon mu am loolu kon nag nun dun mën lu du sant yàlla bu baax sant sëriñ Touba sant sëriñ Muntaxa mi ko fi nekkal ci pas-pasam ak yéeneem ak bëggum bëgg dëkk bi danaa ci wax rek tuuti loo xam ne loo xam ne fa tabaarakallaahu defoon na ko te moom mu war a doon lu ñëpp jàngat dafa am benn bis mu woote ne day dafa bëgg def surne boo xam ne njukkal sëriñ Touba ci ciy jub njukkal Seex la ciy jublu woo jànkati xasida yëpp ñu daja fi jànkati alquran yëpp daja fi kilifa diine yëpp daja fi ci daru minam ñu yendu fee jàng xasida ñenn fee jàng alquran ba muy wax ba noppi dafa ne li ma def day taalibe bu ne war na la taalibe bu ne war ngaa njukkal Seex ma sàmb ndax ni mu taxawoo eh, yoon wi ak ni mu taxawoo Sëriñ Tuuba ak ni mu tasaaree xasida yi war naa tax kenn ku ne eh, njukkal ko man nag loolu laa xam booba samay kilifaa ngi fi sax waaye néguma leen ci sax ndax boobu muñ naa ba mënatumaa muñ ma ma def surne bi kon kooku moom li mu wax jeex na takk en tant que xalif général de Mouride nga am taxawaay boobu kenn mënul def lu dul sant ko te fii yi ñu fi def yëpp bi ñuy sanc dëkk bi xaalisam dugg na ci jumaa ji bañ koy tàmbale rek la ci xaalisam dugg kon yàlla na ko yàlla fay yàlla guddal fanam te wéral ko yàlla defal leen tawféex ñuy santit gouverneur euh, keroo am na empêchement waaye nag at suyam ba mu fa teg presque liggéey na liggéey bu impeccable boo xam ne benn liggéey gënu ko mat sëkk lu ñu war a wax wax na ko lu mu war a gëstu gëstu na ko chef service bu mu war a waxal wax na ko loolu moom lu am solo la tubaarkala sonaateel wax na ci keroog sax dara ndax mooy lii tey rek daf ne Sonatel de gis naa ne suñuy woote fi réunion lu bari du ñuy ñëw lu war nañ di ñëw nag ci fi ne woon na dana leen jot wax leen ko ba tey itam tey teewuñu fi waaye béréb bu bees boo xam ne xëy na euh, réseau ba du mën a am doole fexe ba ñu renforcer ko ba ñi fi nekk mën a jotante lu am solo la tubaarkàlla loolu moom ñu koy seddaliwaat bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di gërëm comité d'organisation bi ñoom it am nañ ci taxawaay bu rafet ndax veillé nañ ci bu baax lenn lu ne sàgganuñ ci taxaw nañ ci ba la nga xam ne moom war nañ koo def ñu def ko kon fa tabarakallahu ñu ngi leen di sant ci njiitu sëriñ Abdou Rassakh waaye ci effectif bu Basiru mi mu fi teg te nga xam ne moom it am na taxawaay boobu ndax mboolem yu soxla woon yëpp mel na ci misaal ne lépp am na fa tabarakallahu kon ñoo ngi sant yàlla bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal nañ ko fekkee na gën a déwén te taxawu ko ba fu mu bëgg fu ñu bëgg mu àgg fa yàlla suñu boroom dogal mu àgg fa yéen it suñu borom yokku leen ku ci jóge fii yàlla na doon nga yokk bu baax lu ko jar waaw ndax nekk Touba dama sëriñ Mbaye di sama benn taalibe dafay nekkoon daf ne man de jànge naa tuubaa loo xam ne ñaaraat yi ma fi am xame naa ci ne daal nekk Touba am na njariñ ndax xamoon naa lii liggéey bi xam naa service bi xam naa li ñu war a def lépp waaye nag nu ñu war a jëflantee kilifa ak cër bu ñu ko war a jox ak ak ñu ko war a jox te te yeneen kilifa duñ la mere loolu fii laa ko jànge lu am solo la tubaarkàlla lu am solo la tubaarkàlla ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla bu baax yal na yàlla dool leen sutura bu baax taw tawfiq ak taysir kon nag bis bi moom li ci des mooy mooy nu bàyyi ko xel rek am bis bu ñu jagleel sëñ kër sëñ baara nga xam ne sañ Moustapha mooy mooy njiit li am na ci yitte loo am ci yëg euh, bàyyi woon na sax ku mu jox ko spécial ne ko daal fu ñu ci tool nag ma koy wax rek ndax yitteel gu mu ko yitteel loolu euh, bis bi lay doon boo xam ne mooy jiitu màggal gi benn fan euh, beneen bi ci des mooy cérémonie officielle bi nañ ko daal defee rek lañ koy defee invité nañ ci chef de service yëpp invité nañ kilifa yëpp ñu ñëw fekke si ko invité nañ kilifa diine yëpp itam ñu ñëw fekke si ko incha allah représentant à président de la république moom it daana ñëw ak ak ak forte délégation. Mm-hmm. moom ñu ngi koy sàkku mu defee ko noonu na mu ko daa defee rek fa tabaarakallaahu di leen gërëm di leen sant mm-hmm. asalaam ñu ngi nekk mooy mooy bésu màggal gi 31 yi ca ca ca ngoon ga lañ koy def dañ daa def boo koy def nag boo defee euh, boo xam dafay tase ak aaru julli dafay daal di jaxase yëf yi ndegam dafa jege jumaa ji ñuy woote. duñ mën nodd ba pare nga nekk di waxaat leneen ak def noonu ñu bëggoon di ko def après buñ jullee buñ jullee gee ba noppi sax moo gën a baax nga xam ne dana tax ñu mën a wax li ñu war a wax lépp war a def li ñu war a def lépp fa tabaarakallaahu euh, luñ luñ ci war a jël ci ay mesures jël nañ ko incha allah lépp dana baax incha allah jërëjëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf